dañ ko wér ñu nuyu mbokk julit yëpp di nuyu mbokk talibé yëpp tay nak bu ngeen gisé suñu jotaay fi kenn du laajte lañ mo xew bisub l'islam bi modelusi delu ci muy 18 safar 18 safar nak buñ ko waxé dañuy wax bisu sante yalla ndax ki nga xamante ni mooy cheikhul khadim suñu yaakaari tay ak ëlëk mom mi nga xamni dafa gennon ca bisub samedi ba di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ngir dem liggéeyali suñu boroom jaarale ko ci sangam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa bi mu defee liggéey bu sell bu rëy boobu fukki at euh, euh, juróom-ñaari at ñibbisiwaat ca réew ma indaale mayam yu rëy yi mu ni bisam boobu su ñëwatee nañ ko ci santale yàlla suñu boroom tey nag euh, bis boobu damay wax ni dafa génn senegaal dafa génn Afrique euh, dafa wër àdduna moo tax fii ci itali particulièrement à Brescia euh, ñu ko fiy màggal di ko ànd ak euh, jamia bi muy l' association Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul bi nga xam ni moom moo nekk fii ci Brescia Touba Pontevico ñuy ànd ak moom bis boobu ak bisub julit yëpp ak bisu yi nga xam ni mooy bisu lislaam yëpp di ko màggal fii ci réewu itali ah tey eh, ñu nekk fii comme ni ma ko waxee ci salle bu mag bi nga xam ni moo nekk Pontevico di ko fi amale eh, ci njiitu eh, ki nga xamante ni mooy moo du Mbaw nga xam ni moo jiite liggéeyub Serigne Touba bi ànd kook jëwriñ yëpp ñu taxawak nag ki nga xam ni moom mooy le secretaire général muy Serigne Matar Diop moo wàllu document ci wàllu kayit lépp loo xamante ni rek dafay sellal liggéey bi. Euh, ñu taxaw ak moom nii ndax ñi ngi fii nga xam ni mooy ci intraté bi nga xam ni képp kuy ñëw ci bis bi ndax bisu tay bi dafa tombé ak li nga xamni moy mooy mi ci réew mi ñu am ay charte yu ñu tégal yo xamanteni ni mënuñu ko euh, def bis bi sañu respecté charte yoyu ba taxna ñi ngi ak le secrétaire général fi ci intrate bi nga xamanteni fi lañuy ñëk jaar pour ñu contrôler cette température def la registration su ko défé nga mëna dugg ci biir salle bi secrétaire général ñi ngi lay nuyu ginnaw bi ñu la sargalé ci bis bi di la jaajëfal di leen ndokkeel vraiment ci liggéey bu sell bi nga xam ni yéen a ngi koy taxawee bisub tey bi 18 safar euh, malgré li nga xamante ni moom mooy les conditions yi ñu tegal loolu rek li ko waral mooy mbas mi euh, fexe nañ ba amal bisub seriñ tubaab bi secrétaire naka lañ def ba amal bis bu tedd bi nga xam ne mooy 18 safar. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Alassane jërëjëf ñu lay sant ñu ngi leen di nuyu di yi leen ziyaare ci bés bi waaw ni nga ko xamee rek bis bi ak ni ñu ko déggee dañ koy dund ci contexte yu xaw a ku nekk xam na ni heure bi daaw bëggoon nañ ko mënul woon a am terewul dundal nañ ko ci beneen anam ren yàlla dogal na euh, am ay ay yu génn yoo xam ne règle yoo xam ne dañ koo teg ci ko xam ne da nga bëgg amal ay daje fii ci réew mi te comme ñun àla kuliyaanin foofu ñu jëfe ndigal li ñu jéem fexe ba jëfee ko te mën a aussi sàmmante ak euh, règle yi nga xam ni moom lañ teg ci dëkk bi de fepp foo xamni mbolo da fay dajé manam képp ku fay dem obligatoire la nga yor green pass manam green pass manam nga def vaccin yi boko deful euh, nga wara def ben tampon bo xamni euh, warul dépasser 48 heures pour mën ñew tew ci barab bi diñu tégalé charte yoy nak ñu annoncer ko xamal ko mbolo mi xamal ni ñi lañu démé ku bëgg ñew ci magali faaw nga mbaga matal wara wara matal lolu lolu war dal nga gis entrée bi mu démé ni nit ba la fay duggu d'abord dinañ contrôler sa tampon température ñu xool ba xam passé wul 37 virgule 5 boo ko doo mën a dugg ñaareel bi faaw nga wane loolu green pass boobu wala nga wane tamponné boo xam ne def nga ko boo fa jógee nga jaar si fii ñi nga xam ni ñooy def régistration bi ndax régistration bi aussi dafa bokk ci sart yi muy maanaam fépp foo xam ni mbooloo dafay daje maanaam képp ku fiy dugg war nañ am sa sa tur sa sant sa numéro téléphone maanaam loolu luñ si jublu mar day taali ñaan ñu ko yàlla bu xew contacter laaj ñu ñan ñoo fi ñëwoon donc looloo waral ñuy wax registration rek yi dinañ mën a numéro yi jël yi nga xam ne dañ koy laaj nit ñi dinañ leen xamal ne barab ba ngeen teewoon kat am na cas bu fa am ñooñu aussi mën a fagaru war a dem defi seen tampon war ki xool a rete mais pour rek mën a sàmm tam taalibe yi nga xam ni suñu devoir la dañuy ñëw ci bisub sëñ Touba bi loolu moom moo ko waral jërëjëf jërëjëf sëñ Matar macha allah leer na comme noonu nga ko waxe ñu ñu defal bërëb bu mel nii ci euh, duggukaay bi ak registration bi ak jël température bi mbokku taalibe yi ndaka lañu ñu ci lii nga xamante ni moom mooy ci wàllu euh, chart yooyu ndax comme ni nga ko waxee du mais gouvernement Italie la moom moo wax ni dafa am charte yu war a respecter pour mën a amal yenn ndaje yi euh, la communauté sénégalaise ndaka lañ percepirer ndaka lañu jotee ci loolu nga xam ni moom mooy dogal yooyu. waaw jërëjëf loolu tam dañ ciy sant yàlla bu baax ndax euh, wax dëgg yàlla bi ñu bi ñu jotee information tam euh, maanaam jàllale nañ information yi ba ma xam ni jàll na képp ku fii ñëw xam ni lii moom nga war a am tey wax dëgg yàlla xam nañu comprendre nañ ko xam nañ ni jamono moo ko laaj dëkk bi moom moo ko laaj ba ama képp koo xam ni mataloo sart yi maanaam euh, maanaam ja doo fi sax jege wax dëgg yàlla non seulement loolu aussi parce que salle bi aussi dafa am ay limites parce que Cap Yenn sa salle bi ñu nekk 4000 personnes la mais ak jamono yi ñu toll mënoo fi def dépassé 35 pour aussi pour mën aussi respecter distance yi. ci biir ak euh, mu kenn aussi mën di tak sa masque. mais alhamdulillah, beaucoup taal aussi yo yep bañ nga xamee. ñu ngi ciy jéem a sàmmanteeg seen kéem talaay kàttan. jërëjëf jërëjëf secrétaire général jërëjëf Seigne Matar xamna kon euh, euh, ban kàddu ngay gëna a mbok mbokk yi rek ngir ñu jappalé ci li ngeen xamanteni damay wax ni yeen da ngeen né ci bopp bi rek waye ñom ngeen koy ñom ngeen koy def. waaw li ñu di wax rek moy li ñuy def fi lépp pour aar leen sàmm leen ndax euh, bëgguñu kenn ñëw ci bésu sëñ Tuubaa ñu ne foofu la ko jëlee bëgguñu it autoriser dëkk ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci ci ci dëkk bi li ñu Cheikh Mouhamadul Mourtada waxoon na ngeen fexe bay sàmmanteeg sarti dëkk bi loo xam ni itam seen diine sant leen loolu aussi jéem a sàmmanteeg loolu ba képp koo xam ni bokkul si ñun boo fi ñëwee di ñu naw di nga xam ne ñii aussi wax dëgg yàlla ñu ñu ñu jata fonk lañ ñu jara kii lañ loolu daal moom mooy euh, la xam ne ñoo nekk fii tam li leen di wax maanaam defuñu ko si seen coobare bopp ñoom la ñuy jàppale pour bëgg rek màgg gi mën a mën a jàkk ñu jéem a leen a déglu ci loolu daal jërëjëf jërëjëf sëñ Matar Diop kon moom la ñu doon waxtaanal noonu moom mi nga xam ne mooy la secrétaire général bu association Cheikh Ahmadou Bamba Touba Brescia euh, mu wax kàddu yu am solo nag yoo xam ni euh, ñoom wax dëgg yàlla dafa am ay kàddu yu nu jokkalanteen ñi nga xam ni ñoom ñooy autorité suñu kàddu toppal leen bis bi ndax bisub tey bii damay wax ni euh, bis la bu màgg ci yoonu lislaam bis la bu màgg